asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw Oustaz Wade jaajëf ñoo ngi lay sant di la gërëm euh, boobu nga ñu génneel di wax ne am nañu jóg di dox ngir euh, jàmm doxaat ci diggante xidmatul euh, xuddaamul xadim yi ak ak ñi nga xam ne ñoom la sëqal ci wàll gi ñu nekk allahu yad'u ila daari salaam wa ni man yashaa'u ila siraatin mustaqim yàlla moom jàmm lay woote jàmm moom lay woote te ci kër ak jàmm lay woo jàmm ñi jàmmoo nag moo gën jàmmaarloo gàmmoo moo gën jàmmaarloo olof dafa wax ne jàmm saa gën janoy néeg te su ngeen xëyee xuloo jàmm moo gën jàmmarloo jàmm saa gën janoy néeg te boo xëyee xuloo jàmmarloo moom xam ngeen li muy tekki ndam ak kañu gañe yëpp kenn amu ci ndam ndax ku ci nekk def nga da ngay def force di nga def temps di def alal di nga def ay pexe jàmm saa gën janoy néeg te bu ngeen bu ngeen xëy xuloo itam li muy teg ci wolof mooy nit ki su fekkente ni da ngeen a bokkoon location ci genn kër nga luyee fa mu luyee saa yu ngeen xëyee di xulo saa yu ngeen xëyee rek ne ci xuloo ba yàgg yow nga jóge ci kër googu nga toxu dem ci geneen kër goo xam ne sori na ko ba nga xam ne sax dalay namm da koy namm si ngeen dajee nga ko jàmm sax mu ne la jàmm sax mo mo maanaam yaa ngi am jàmm mu ne la man kay maa ngi ci jàmm ba yow yaa ngi ci jàmm gëj naa laa gis loolu mooy jàmm saa gën janoy néeg te bu ngeen bu ngeen xëy xuloo loolu kër gu ñu bokk te kenn moomu ko noonu lañ fa mën a def jàmm am ku bëgg jàmm day toxu ñuy dox di daje amaa nag su fekkente ni dama ñëw ci kër ustaas Wade dëkk moom te moom këram la moo ko moom bu ñu mënta jàmmoo naka la ñuy def oustaz wante day may jox caabi kër gi génn dem wala man maa ko mën a abal kër gi même su fekkoon te ni moom moo may tooñ sax man mi di surga maa war a génn kër gi uti kër mbaam ma wuti fuñ ma dul tooñee waaw bu fekkee ni nag man man maa koy tooñ nag bu fekkee ni man maa fekk oustaz Wade ci biir Wadeen ma di ko fa tooñ nag ñi di fa xuloo lan la xel maye li xel maye mooy jàmm saa gën janoy néeg te bu ñu xëyee xuloo te moo moom këram te waxtaan la neex boroom kër te la ma fa wax neexu ko du ma fa jege dem feneen bu dee xel laa am dama fa jóge dem feneen bala maa toog ba mu xëy jël saay bagage sànni ko ci mbedd mi ne ko ne la ne ma abal ma sama kër abal ma ne ma ma sama kër ndax mënu maa jubóog yow loolee lépp nag daa am lu ko gën la ko gën mooy lanu boole woon maag oustaz Wade ba tax ma dëkk ci biir këram googee su ma ko dee xool mu di ko xool dinaa moytu lépp loo xam ne su ma ko defee mu yëkkati sa diitu jéeg oustaz Wade wala na xari ko waaye oustaz Wade mi ma dalal ci këram moom su dara desul lu dul mu di ma tooñ ñuy xuloo daf may wax ne jëlal say bagaas nga wal ma sama kër mënatuma la fee bëggatuma la fee gis en tant que ñoo ngi fay xuloo rek xamal ne euh, ñii muñ rek na leen war ne maay tooñ oustaz bu ñu séqee mbalka naan ba du jekk waaw bu fekkee lenn kuy li moom moom mbalka mi nag kuy lii naan si nu muy def ñaari kuy bu ñu sëqee mbalka ñoom ñaar naan ba du jekk waaye bu fekkee ni lenn kuy li moom moom mbalka mi nag kuy li nga xam ne dañ ko fi wëggaan si nan lay def daaw ba ren ñoo ngi wax jàmm di woote jàmm di wax ne nañ leen waxtaan ci jàmm moo gën eh, lislaam mooy diiney Sénégal waaye àttewul réew mi ginaaw islam àttewul réew mi nag kenn ku nekk mbooloo ma nga àndal lala yàlla may ci ñoom ci ak njub da koy sant yàlla te xam ne mënoo leen a forcé bu la yàlla baaxee ba nga yore sénération boo xam ne jàng nañu ràññee nañu ràññee nañ sunna ràññee farata ràññeelu araam ràññeelu dagan keneen yor génération boo xam ne ñoom dañoo bare bare ba mu a siri na lijjanti lamu la fa nekk te mel ni sa mbooloo ci xam-xam ak ràññee ni suuf si la toll waaye la fa nekk te toll ci te toll ci ñu war leen a former ba ca warit ni suuf si la toll mu nekk lu débordé ku gis waa Sëriñ Tuubaa ni ñuy liggéeyee ba yëg si tey ci ñuy tabax ab université nga gis la ko dale ca daara yi sëriñ Abdourahmane Lo ji ca ndaam jaar ci daara yi sëriñ Mor Mbay Siise ji nekk njaareem jaar ci daara yi sëriñ Abdourahim dem moom sëriñ Muhammadu dem ci njaareem daara yi sëriñ Malick Jóob daar yi nekk Tuubaa yi nekk Mbàkke Bawol ak yi nga xam ne ñu ngi des ci réew mi lépp di ay nit ñoo xam ne dañoo taxaw ngir jàngal murit yi former leen xamal leen ba ñu ràññee te buur dimbaluñu ci dara ñun ñoo ko defal suñu bopp waaye waaye yow bu la yàlla joxee pexe jox la financement jox la ñu la jàppale ba nga am possibilité mën a jàngale sax di maye di former ay nit di leen dimbale te yow loolu danga ñu cee fekk te sax sunu formation yow da nga cee bokk boo dee yar seen njaboot ba njaboot googu bëgg a bëgg laa yëkkati yow sa bopp teg la ca kaw ña la formé woon waaye nee leen hey man kat daara ji laa génne lu ngeen di naaw ci man kat fee la tàmbalee bu ngeen leen respecté wul ngir yë yàlla it kon respecté leen leen ngir sama jëmm ndax ca ñoom laa la la la màggee fa laa yaroo fa laa tostanoo fa laa fa laa jàgge mu jaral la nag nga mel ni Sëriñ Seex Mbàkke meloon ci jamono Sëriñ Fàllu ku ma toog ci wetam rek tudd Sëriñ Fàllu mu teg la mu ràkkis dóor la loolu mooy fulla mooy fayda waaye bul yar nag sa njaboot ba eggal yow ña la yaroon ba lii nga am nga am ko sa njaboot gii di dal ca kaw ñooña guddi ak bëccëg te di la tudd mënoo leen a noppiloo mënoo taxaw def sa déclaration ne ñii ilif ma leen dañ may tudd waaye sama yor nekkul ci ñoom ñu xam ni ñuy def ak ñoom loolu boo ko defee bu yàggee yow la toor di dal man yàgg naa wax ne ñi jiite salafiste yi nekk fii ci Sénégal bari nañ waaye ñiñ ci tudd seen tur bari wuñu taafentoo googu ñu leen di taafentoo di tudd seen tur di wax lu leen yàlla yoore am na ci ñi nekk bitim réew di wax te xam naa ne wóor na ma ne xamuñu leen mosuñu leen a gis xamu leen leen sax yéen mais wax leen rek nañ dañuy wax ci àll ba waaye ñun suq ñoom ñoom dara loolu kay yomb na Serigne Fallou Mbacké yal na ko yàlla yokk leer dafa am benn sàcc bu ma sa dugg Jurbel ci genn kër yéeg ne cëpp borom kër gi ne ko ana kii mu ne ko mën a diw mu ne ko lu tax nga yéeg fii mu ne wallaay damaa fëgg-fëgg eh, kenn dégguma ma ne naa yéeg sëñ Fallou daa wax ne yée leen gone yi ci guddi gi ñu sang ñépp na ñépp sangu ci guddi gi waaye daal dina ko ak ah, kon kay bay boo jaaral mbedd mii ma jaar mbedd mee waaw comme comme gars yi niñ gëmee rek sàcc ma jaar mbedd mee naan déglu leen jàmbale sëñ Mbàkke sëñ Fàllu Mbàkke nee na ñëpp jóg sangu ci guddi gi yaa <laughs> dégg ñun boobu ay dooga daara lañ dañoo yee sangu ci ci sedd bu metti boobu ca jamono jooju ba ñuy bëgg dee waaye ci suba rek la sëñ Fàllu di wax ci rajo bi ne fàllu mi ci Tuubaa bokkut ak fàllu mi ci guerre bi fàllu ci Tuubaa bokkut ak fàllu mi ci guerre bi li ngeen di dégg ñu di ko wax ci réew mi ne maa ko wax waxuma ko waaye dëggam doomi sëñ Tuubaa moom mooy wekki ab wuñ koy wexel ka boobu ne yow mi nga xam ne ci njabootu Sëriñ Tuubaa nga bokk yàlla def la kilifa buñ la bëggee weel wane weng waaye taxawal ne wekki ko sànni ci àll ba ne loolu sama yoon nekku ci waaye bu ñu dee boo dee junj ñuy xàllati ngay junj ñuy xàllati ngay junj ñuy xàllati li ñuy wax a gën a ñaaw fuuf waaye yaa ngi junj lu ko niru te ñoom ñu ngi lay tudd mais naka la ñuy def lu dañuy ñaaw jot nag ci yow nañ delloo ci xel yi nañ delloo ci xel yi nañ leen delloo ci xel yi yow loo mën a daj ci nit ki ngir yële ko àjjana bu ko yàlla bindee ca waa safara mënoo ci dara te nag bari waa koo yaakaar ne nekkul ci dëgg yow mal xiyaam fekk ci dëgg la nekk nun ay masala dong lañuy jàng kenn ku nekk di ko firi sëg dégg waaye kenn wa ayuñu jibril ñëw ñu jàjjante ñu ñëw ñu ne lii mooy dëgg lii du dëgg li fi bàyyi woon rek ci lañ bokk te ñu ñëpp ñoo ci bokk yem buñ ci waroo yee nañ ci waxtaan waaye ah baadoola moom su bëggee teg luwaa ci moroomu baadooloom ah du sottee noonu moom déedéet ki nga xam ne nag dafa sañu tafab aw yet dóor la forcé la ci defal nangam waaye bis bu nekk mi ngi dëkk ci di wax lu la naqari xamal ne kii bu amoon doole man laa koo jaay dina la jaay doole loolu mooy problème bi ñun nag jàmm rek lañ bëgg yal na yàlla def Cheikh Ahmad Lo woote waxtaan ak njabootam ñu génne déclaration bu leer nañ ñu bàyyi nit ñi ci loxo yàlla suñu boroom di waxtaan ak ñoom ne ko suñ tubaab doon defe di leen jàngal ci ay tomb ak i junj te bañ leen a jaay doole mu sax boo ko tasee ci koñ mu xiiru xiiru nga të dana la wokk ndax il faut mu fu mu jaar ba dem nun nag fi nekk nii dañoo egg ci tas ñu ci koñ waaw fu mu rafete rek ñu teggi sànni fu mu ñaawee ñu nekk li loolu moom day jeex li may jeexale dem ci jàng bi mooy nun aqidatul ashariya lañu ame ak fiqul maliki loolu lañu ñu baye aqidatul ashariya ak fiqul maliki lañ ñu bàyyee doonte sax sëriñ bi yàlla joxoon na ko yeneen i jagle soo ko waxee nag ñu ne waa déedéet yàlla joxu bu ko yàlla joxee jagle eh, nit ki yow li li nga xamut da koo ñàkk xam waaye noppil ginnaaw xamuloo ko ngiru Malik dañ ne amul lenn loo xam ne ab jullit dina ko def te jullit boobee di mukallaf te loola di xeeti jaamu yàlla te xamu ca la atteb yàlla ak atteb yonent bi masalan soo doxoon ba gis ustaas waat di julli di xabdu te di malikiya di muridiya di aqi di ashariya nga ne ah oustaz oustaz Wade gis naa ko mu ko jul di xabdu waaw bu amee jagle googu nag maanaam jagle gi mooy su demee ba àllu baam egg ci xam ne lii yonent bi daf ko doon def te wir na nag te loola doy ko mu di ko def jël te taaligeer nag ak toji bopp waaw loolu ndax dina tax man ma jóge ca àll ba nga bësaawi yet nga xam Fatick wala xëy naa si kott laa xam faratee julli sax dama ko lijjanti xaw ma nu mu demee ma gis oustaz di ko def rek ma dem di ko def te xaw ma ci xaw ma ci àtteeb suñu borom lenn rek mën a tax ma di ko def mooy ma def ko ma marji lii yi maanaam ma def ko ne ko yow xaw ma waaye li nga def doy na ma wékk naa waaye loolu manes na ko ci ibaadaat yi waaye ci aqaayid yi kenn mënu ko ci waaw yóbbaale ma nu ànd jaamu yàlla man naa nekk may jaamoo ni ngay jaamoo waaye yóbbaale ma ci pas-pas man man liibar yow ci sa pas-pas bi laay continuer loolu moo mun te nekk kon bu fekkente ni ñun dañoo nekk ci aqidatul ashariya fiqul maliki ba noppi yàlla dogal am ci suñuy doom ñoo xam ne génn nañ ci aqidatul ashariya génn nañ ci fiqul maliki ci masabu alil hadis la ñu nekk maanaam ñoom ña ngay jële ji ay atte fa Malik doon jëlee atte ñoom dañoo dem ba egg ci jot imam Malik ci xam-xam ak ba waaw ñoom mën nañ koo def waaye du tax nag ñun ñi ñu def leen sunu Malik nag déedéet ñun sunu Malik man amoon ca la ñuy continuer waaw soo demee nag ba egg ci maqaamam malik ba mën a def istinbaatul ahkam min al ahadisi wal ayaat itam du tax nag nu def la sunu malik nun malik mënu doon topp ca la ñu benn waay bu yeewu dafa waxtaan ak benn doomam daa di koy wax benn atte ci malik doom ji ne ko waaw léegi danga may wax nag fukk ak dis wax mu ne ko hee Malik ma gën a dégg hadis dégg Malik doy na ma mu wax wax mu ne ko du wax hadis bi de Malik ma gën a dégg hadis dégguk Malik ibnu Anas doy na ma yow itam soo demee jàngi ba ñëw indi sab xam-xam indi say hadis indi sa lépp mel ni Malik waaye defal ni Malik rek toogal di jàngale di jaamu yàlla ku la xool ba lii nga nekk doy ko mu dikk ne yaay sama Malik nga am sa dongo waaye fekk ñoo xam ne ñu ngi topp imam Malik ca baawoon ba tey dañu rek bëgg a dal ci seen kaw da dajji aqidatul ashariya dajji fiqul maliki ne mas abu al hadis tëral nun jàngunu hadis xamunu hadis jàng nañ fiq Malik ba noppi addis xamaguñ ko jàng ko ba xam ko waaw boo nu bëggee yóbbu ci mas masab addis doo toog boog diir boo ko mën a jàngale bañ xam ko da nga ñëw rek appuyer sa doole ne dañ ma leen di imposer masab addis te ñu te ñu jànguñu woon loolu loolu bokkul ci ikma ci daawa jullit bu yàlla xam xam xam la ko war ne ca kenn du ko jaay doole ba ñuy julli di jublu baytul muqaddas yàlla waxutoon yonent bi julli jublu baytul muqaddas waaye daa fekkoon nit ñi daan fa jublu mu ànd caag ñoom léegi ñu ñëw ci bi ci alxuraan waaye ba ko yàlla digalee ne ko jullil jublu ca kaaba ga ya ba ba yëfari ak ak ak ak ak naan kon seen julli yu njëkk yee nag yàlla dafa ne yàlla du neenal seen ngëm imaanukum googa yàlla wax nag salaatukum la ca jublu yàlla du neenal seen ngëm moo tax ñu ne julli ci ngëm la bokk ngëm ci julli la bokk mu ne mu seen tàggale waaw yow mi nga xam ne jortu nga ne jortu nga ne la Malick nekkoon du yoon du da ngaa indi lu bees nga fekk ku dund juróom-ñaar fukki at juróom-ñetti fukki at nga ne ko sa maam li mu nekkoon ak sa baay ak yow mi dara baaxu ci dama lay indil lu baax danaa la c'est pas l'appel kon bala bàyyi ma rek foo maam dugg ak ma dugg foofu ndax man sama dund jax na ba noppi sikk ma dafa am ci lu nekk te masabul maliki mu ne su de indi fii lu ko gën a wér kon aqidatul ashariya fiqul maliki mu ñun ci lool lañuy topp yaara ngi feeg defaluñ leen ko dangeen di di yaar yaara ngi feeg defaluñ leen ko da ngeen di continé lenn na ngi feeg defuñu ko dangeen ngeen di continuer siña sëñ sëñ Axma sëñ Amsa sëriñ Muhammad Rifaa'i sëriñ Xaadim Mbàkke sëriñ Ahmad Daarul Muti ñëpp nag laa bëgg ñu dégg sama kàddu gii muy wax yaara ngi fekk defaluñ leen ko da ngeen di continuer waaye lenn na ngi fekk defuñu leen ko da ngeen di continuer waaye bés buñ leen defalee yaar yii def leen leen lii pare ngeen yaar yi nga xam ne buñ leen ko defalee daane seen mbooloo mooy bis bu ñu ŋàbbee seen wërsëg ngeen di ko yaakaar ci ñoom tarsu ngeen bis bu ñu ŋàbbee seeni doom di leen jàngal diine tarsu ngeen ndax foofu moom da di dee rek seen doom yi toog seen place rek affaire ba jeex yaar yooyu fekk defaluñ leen ko da ngeen di continuer fekk ëmbuñu seen ëmbu leen seen sangal ñu yëkkati di leen dox ngeen di jariñoo yéen waa kër sëriñ bi da ngeen insisté da ngeen taxaw fekk jëru leen seen ak njaboot jox leen ko ñoom ñu jàngal leen ngir taraanga ji yàlla teg ci seeni loxo ngeen yéene ko seen ak njaboot da di continuer waaye bis bu ñu ëmbee bis bu ñu leen ëm bu ngeen leen ëmbalee sangal mi di leen jëriñ da ngeen ëmb kersa seen diggante ak ñoom bis bu ñu yaree seeni doom eh, seen woote fi lay yem ndax ku la jikkoom doyut bu ko yarloo sa doom ñaar yooyu mooy yi nga xam ne fekk defaluñ leen ko da ngeen continuer benn bi nga xam ne bis bu ñu leen ko defee du ngeen continuer mooy su ñu jaxasoo ak yéen ba umpalee tu leen umpalee umpalee tuñ ci yéen dara ngeen di wax seen biir ak seen biti ñu xam seen lépp di jaxasoog yéen tarasu ngeen ni ñuy def di waxtaan fu ngeen fekkawul dina waxtaan fu dul fekkee li ngeen nëbbee seen i pexe na ngeen nëbbee seen i pexe li leen li ngeen am na leen doy na ngeen jànge gis na sa sunu maam yi daan jànge mbaa ngeen tëral seen système u jàngeenu bopp moderniser ko ngeen griseel ko seen bopp waaye bis buñ grisee seenum jàngale di yar seen i doom da danañ leen daaneel bis bu ñuy làmb di leen jox ngeen di faje seen soxla lañ leen daaneel bis bu ñu xamee seen baatin ak seen saa'il nekk ay bitaana nekk seen mbubbi njit laayit danañ leen daaneel wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu